Birane dafa yàgg na. Birane nag bàyyi ko dëgg. c'est un chaque mm. dimanche damay def les euh, dimanches du tourisme. Mm. Euh, sama y a d'autres dimanches doon waxtaan si mm. si loolu. tourisme tourisme ak euh, immigration clandestine. si solution yi aussi loolu bokk na si du ma préconiser il faudrait que aussi les pays les pays développés où les jeunes vont pour la plupart mais essayent un peu de faciliter le visa. surtout le visa tourisme. parce que la plupart dañuy dem curiosité moo leen di yóbbu. ku fa dem tourisme une fois peut-être su ñëwaatee xëy na euh, ambition bi muy am pour delluwaat du du du kii te kuy dem kuy dem par la voie normale xam nañ ko. Mhm. yor nañu passeport am et tout yor nañu ñu ko jox visa am naa des renseignements sur lui. donte su dawee sax mais gouvernement bu ko bëggee jëli. am nañu filiation alors que soo bëggee tëj ñi nga xam ne ñoom dañuy dem par la voie illégale doo leen mën a cité wu mm. te lan moo tax problème di am la plupart ñuy dem ñeneen ñi musuñu xam géej ñeneen ñi mm. ñu feey nekkul ne ñu dëkk si côte yi ñooy dem euh, la plupart aussi bu ñuy dem du ñu xamante sax waaw ñu xamante moo tax affaire bi jafe parfois su amee jéeya su ñu bëggee interroger interroger rescapé yeneen rescapé sax du ñu xam ñaata nit moo ne ko si gaal bi. Mm-hmm. parce que moom dafay fay lu muy fay ñu jël gaal bi teg ko fu sore moom ñi yëpp ko rek dugal ko kenn ñi yëpp ko dugal ko ba suñu paree ñu ne piip nañ dem. donc c' est les vrais cerveaux ñoo xam c' ñoo xam effet bi ñaata. Mm-hmm. te nu ñuy fay bokk bokkul am na ñuy fay 400000 am na am na ñu dul fay am na ñuy fay moins et tout ça mm-hmm. mais ñoom lu ñuy gis lu dem. aujourd'hui si si si si euh, solution yi dañu war a waxtaan d'abord ak jeunes yi mais waxtaan aussi ak parents yi waxtaan population bi nga xam ne ñoo dëkkee ci côte bi parce que gaal bu dem ñoom war nañu ko mën a xam. Mm-hmm. waxtaan aussi ak les Sénégalais yi nga xam ne jaar nañ foofu ba dëcc ba dem Espagne wala ba dem Italie ñu wax ñu ñoom aussi ils ont leur partition à jouer. Mm-hmm. donc tey euh, population bi war na si am part euh, euh, gouvernement bi war na si mais aussi yeneen pays nga xam ne ñoom la ñu jëflanteel surtout les pays développés aussi nekkul ne jéyi am na peut-être ñoom ñu yónnee xaalis et tout ça wala xale yi dem ba foofu ñu joxe xaalis pour ñu delloo si leen mais on doit pouvoir investir sur aussi au Sénégal mmh. mais permettre aussi aux Sénégalais qui ont les moyens qui souhaitent de de partir en Europe mais de pouvoir partir de parce que am nañu ko am am nañu ko bëgg mais mënuñu ko am donc mmh. fexe population bi aussi waxtaan na ak ak jeunes yi yi jeunes yi aussi leur curiosité de connaissance li ngay gis télé bi li ngay gis film yi li ngay gis vidéo yi yaakaar ngeen foofu Eldorado mais soo fa demoon vacances ñibbisi da amaana da ngay ah, comprendre